nga ne lu tax revenir ñu ci décret euh, ci ci abro pourquoi ah, ñu dafa am décret yu am ndey mais mais Abdou Mbow dafa am tamit loo xam ne tamit c'est l'élégance républicaine mooy xam nga boo bu bu ñu demee bu ñu jubee élection hmm. mu am ku war a ñëw hmm. euh, am na ay décision majeure yoo xam ne hmm. même bu fekkee ne am nga encore la légitimité tamit euh, mun nga garder wu jël ko <laughs> parce que euh, à deux jours euh, de, de de de la fin de ton mandat mënuloo tànn le le le le président de la de la de la de la de la cour suprême euh, euh, nga xam ne mu nekk une juridiction majeure euh, dans notre escarcelle judiciaire et puis il y un décret aussi boo xam ne euh, dafa dafa choquant nan la président Macky Sall mën a jëlee décret di octroyer des salaires à vie à tous les anciens ministres fan la ñuy jël xam man loolu j'ai pas xam nga dañ j'ai vu une mais j'ai même pas vu le décret muy ah. benn beneen bi mooy il faut nga xam ne aussi y une caisse nationale des retraites des ministres ak yoo xam ne dañuy cotiser boo amee jot su boo ñëwee sama assemblée nationale moo wan la li nga xamante ni moom mooy la loi donc ministres yi dañuy cotiser pour am retraite waaw maintenant un décret de revalorisation wala yeneen man personnellement instant yi mënuma ci wax parce que gisuma décret bi li ma xam moom mooy la caisse nationale de retraite bi nga xamante ni à l'assemblée na nekk des anciens ministres et députés donc je pense que loolu moom il faut nit ñi xam ne ministres yi dañu am retrait en tant que ay nit ñoo xamante ni dañoo liggéey di am salaire di cotiser parce que nit ku nekk la ngay cotiser après bu fekkee am nga cinquante cinq ans soixante ans ca lañ lay fay sa retraite. mais ministre c'est pas une fonction à vie non déggoo loi yi déggoo li ma la wax ministre da am salaire soo amee salaire da ngay cotiser parce que boo nekkee ministre bu fekkoon da nga nekkoon docteur feneen dootoo jot foofu donc la nga doon cotiser en tant que docteur dañ koy boole encore ak la ngay cotiser en tant que ministre après boo euh, ni ñu koy waxee te demee retraite ci loolu lañ lay fay loolu ay loi la yoo xamante ni ay règlement maintenant ay décret non non non déggoo ma non décret avec avec avec non moom laa la wax dama ne Euh, ministre di abro wala leneen moi je pense que dafa am loo xamante nii man personnellement bugguma ci wax parce que yàlla bindewuma wax lu ma xamul ak wax loo xam ne maîtriser wu ma ko tey jii si j'avais vu le décret ba wax la ñu ne ma décret bi lii la tey jii dinaa la ci wax ne la lii ak lii ak lii moo ci sama xalaat mais loolu mënuma ci avancer parce que xaw ma lu ci nekk mais li ma la mën a wax mooy y a une caisse nationale de retraite yoo xamante ni ministres yi dañ ciy cotiser maintenant un décret de revalorisation ak yeneen ak je pense que loolu bis bu ma demee ba am les éléments dinaa ci mën a wax pour xam exactement ce qui s'est passé mais comme je vous l'ai dit ay décret yoo xamante ni abrogé nañu yi moi je pense que ay l'élégance républicaine je pense que xam nga lan moo am la légalité est-ce que c'est légal si, ou pas parce que ah, non dégg ma légalité dafay ànd ak élégance républicaine loolu seen i mool rek mais dama ne dama ne si c'est pas légal ñu ne ma légal gis nga boo demee dans ni balaa ñu mais Joe bi ñu ko fale xam nga janvier le la la la waroon def son truc mais il y a eu des décrets de nomination de juges xam nga États-Unis dañuy nommer les juges ñoo xamante ne ni à 3 4 cinq jours le président a pris des décrets mënoon naa su ma yoroon sama document mën naa la wax les juges yu mu nommé yoo xamante ni parce que c'est ça la continuité du pouvoir le président de la République jusqu'à la fin muy joxe pouvoir moom mooy parce que présidence de la République amul vacances tant que amul vacance da nga war di jël ay actes maintenant celui qui vient moom mooy apprécier xool exactement est-ce que lii normal la wala normal wala moom est-ce que day dem mais comme ni ma la ko waxee sooy dindi dangay dindi lépp waaye doo del décret yi yi am ndey yi amul baay yi am baay yi amul ndey je pense que loolu ñëpp gis nañ ne c'était une sélection boo xamante ni je pense ça n'a aucun sens c'était des contrefeux yoo xamante ni peut-être doon na permettre nit ñi wax wala di indi yoo xamante ni je pense que amul njëriñ et je pense que loolu les sénégalais ont compris que ça n'a sens et je pense que mbamb comme ni ñuy wax du passé vert c'est des choses yoo xamante ni maintenant ñi ngi de l'autre côté nit ñi sénégalais yi ñi ngi xaar leen mais yow yow yow da nga mm. doon doon nga doon rafetlu euh, genre décision yi mel noonu ñu octroyer euh, à ces à ces anciens ministres là euh, des indemnités à vie. comme ni ñu koy defee pour les généraux non attends ma waxuma xam nga li nga xam ne moom laa gëm mooy nit koo xam ne da ngay liggéey ci réew mi. di fayeeku salaire di cotiser pour am retraite boo paree am âge retraite war nañ laa fay sa retraite man loolu laay rafet